ama kàddu gàngoo lii noonu kon euh, waaw ñu lii rek euh, ah démb procès démb bi ginnaaw euh, procureur réquisitoire am mhm. dix ans la wax pour Ousmane Sonko wax na tamit loo xam ne ba tey ji ñu ngi laaj lu mu doon bu dee ci cinq ans yi mooy li jëm ci corruption à la jeunesse man nag lu mu ci dugg par comprendre ma réellement lan la bëgg a wax foofu te bari na ci bari naa ci moroom aussi kon ñu dem teewlu ñenn ci avocat bu dee avocat wu Ndeye Khady ak Ousmane Sonko yi teew nan ñu déglu leen rek euh, après ñu déglu maître El Hadj te jigéen bu biir bu am problème justice juge bi da lay sa kër ba nga wasin nga door a ñëw ñu door la àtte donc xamuñu luy urgence pour lii pour ndaw si li gën a bon tey jii elle comparé devant une juridiction criminelle avocat mi xool nañ situation bi ñoom ñëpp ñu génn salle bi kenn défendre ko te yoon dafa ne juridiction criminelle mënoo ci taxaw amoo sañ-sañ taxaw ci te amuloo avocat Ousmane Sonko. képp ku koy défendre en tout cas ñun ñi yàlla def ñu sol rob ñu am mu am cofeel ci ñun ñaan ñu ñu assisté ko ba fi ñu toll nii man de dama ne sant yàlla bu baax su Ousmane Sonko euh, jàppale ko c'est ak procès procédure c'est une succession de bénédiction maanaam yëpp ay xéwal la parce que liñ ko ko teg ni mu diisee ni mu ñaawee mais mu toll fii Euh, suñu borom bu lay jox ndam fu ko neex la koy jaaralee te ndam mënul weesu lii ku ci nekk fii xam nga ni ñi monté complot bi seen bopp nee nañu mbir mi dara amu ci waaw bu ñu tolloo foofu ñu ne par force dañuy atte mais nañ ko rafetal bu ñuy atte c'est pas parce que nit ki dafa wootee résistance wala désobéissance que doo ko jox kayit parce que le problème gis nañ fi seen ay naatongo yu ne jot na kayit du dëgg ku ci nekk na nga fàttaliku bés bésu penc balaa bésu penc sax sa sa ak bés bi yàlla ne fal yow ma la laa tuzlamu nafsun sayan wala tus aha non gis ngeen sëñ bi dañuy fontu rek mais li ñu xaar ah te yàlla waxul kenn dara de je pense que sax boo demoon parc an sax genne fa ay mala jox leen dossier bi ñu xool wala nga jël toutes les données def ko ci ordinateur ñu xool Sonko amuñu fu ñu jaar ba condamné ko. saaga yi moom day takarnaase fu nekk dëkkal nañ ma fa waaye ma taxaw rek dëgër këcc xam naa ne am na mani yu bu xam naa ne laboratoire bi wax na ko waaye yemee na secret de ko woon a tey nag mën nañ ko wax tey leer na ne docteur Gaye bi nga xam ne ñëpp xam nañ ne Pastef Kolda la docteur Gaye de prélèvement jox laboratoire bi nekk CTO ni ko xoolal ma xale bii lan moo nekk ci yaramam ca booba Sonko neewoon na moom xamul xamul Sweet Beauté gis naa benn journaliste bu doon génn benn benn certificat médical di ko wane xale bi jigéen bi dañ ko laal laal ko laalaat ko kon ba mu roode loolu kon boo nee perte na mooy kenn laal ko kenn violé ko xamoo dara yow moom nee dañ ma yàgg laal viol répétitif mooy laal bu amul bu amul bul jeex waaw yow nga yow nga taw jël PV naa gis ngeen de laal bi kii nekkatul nekkatul xale loolu du problème bi problème mooy ndax yàgg nañ ko tëddee wala déet waaw ku lu nga roode boo roodee kay doo gaañu boo roodee ku yegg ci yow du la gaañ loolu tey moo feej tribunal mu ne tëree dama juróomi yoon joxe bis yëpp yow nga ne defoo dara kii da nga yegg ci moom du mu leer comme bis bi nga yeggee ci moom ci guddi ga même pas quatre heures de temps dégg ngeen ci ñu doon wax lu leen de koo ngay kàcc ci tàng-tàng bi lan nañ def ko xam ne laal nañ laal bi lan la mooy am na nekk ci lu ñuy wax spermatozoïde vivant mooy man yu boo xam ne mu ngi dund a am doom nee na mu bindal ko pilote du lendemain. kon dafay di yoon. na yaakaar ne danañ condamné. ah Sonko pour fukki at. dix ans d'emprisonnement. ko war nañ ko tëj fukki at. loolu wax mais. li ñu jaaxal. mais procureur daf ko ba pare xaw a daw res tuuti. ginnaaw ma wax dix muy bëgg xaw ma lu mu bëgg. naan am na bu boobu àndul te moom li mu dafa leer naaj. procureur dafa teg dix yi ci lu leer. ba pare ëlbatikuwaat ne bu dul fekkee yow juge bi gisoo ne loolu am na. nga wane ne xale la boo xam ne dañ koo jaay doole. teg ko dil yegg ci kawam mën mën ko. loolu man d'accord ci. Euh, mu doonoon El Hadji Diouf euh, di euh, avocat aji Adji Sarr ak maître Khoureyssi Ba avocat wu Ndeye Khady Ndiaye ak ñoom Ousmane Sonko yooyu moom démb bi mu génnee wax na nag wax ay ay wax ne mbir mi fii la mënoon a mujj li ma gën a ñor ci waxam nag du mbir yi yoon parce que ñun dun procureur duñ juge attewuñ ko mais da ngay jàng ci kàddoom rek mooy fi mu ñuy delloo te man mu doon lu ma intéresse sama dina ba damay dégg wolof naan bu du woon dee lu neex waay def. waaw te pour man mag mu dund juróom fukki jëm juróom benn fukki am na ndox moo xam ne sax dañ ko koy tere parce que fii ñu bari ci réew mi wéruñu rawatina bu safee suukar ak ñoomin seen bu dee lu ñuy lekk mënatul neex ci yow ndaxte say bañ mi ngi màgget kon di sóor dee ci sunu dund dafa am solo waaw di sóor tamit mujj gu rafet parce que fii koo fi ñaanal dana ñaanal mu mujj gu rafet waaw fi ñuy mujj te fi ñuy mujj nag lanu koy définir mooy fi ñuy jaar ak nan doon doxee sunu ndaw kon il faut que yenn yi ñu jël yàlla teg ko waaye man j'ai l'impression que ñu bari bu ñuy wax duñ sóor yàlla du sóor ëllëg mais aussi tamit duñ sóor seen njaboot ci lu bari kon loolu ñu ciy bàyyi xel pour man dafa am solo te xuree si ba da ci dellu siwaat maanaam bu weesoo attekat bi ku mënti doon waaye ku mu ne ci ñoom rek booy atte wala nga koy daan wala nga koy tuumaal na nga jàkkaarlu sa bàmmeel dafa am solo mais yenn saa yi man j'ai l'impression que dañu fàtte yàlla ci suñuy doxin ak suñuy waxin te loolu da ci ci la bokk aussi parce que dund gi moom ginnaaw bi mu tàmbalee rek dee moo ciy mujj te bu dee keneen la ñuy amal affaire te bu boobaa dañuy àtte suñu jëf ci biir suuf te loolu kon lu jar a bàyyi xel la beneen bi ci topp mooy duma dugg ci wàllu yoon mais damay am fierté am ci lu ma bëgg ci réew mi parce que Sénégal dama tolloon benn niveau ñu foog ni ñëpp ñoo am njëg dama foog ni ñëpp mën nga jël xaalis manipule leen ñu foog ñëpp danoo tapet ba bu ñu jàkkaarloo nguur wax waxee wala ñu fen mais ku mel ne Ndeye Khady Ndiaye xaw mu am dëggum wala moo am lii mais damay am fierté di gis jigéen mu mel noonu ci réew mi maanaam njàmbaar am li muy bañ am ay conviction am ay principe même ci jafe-jafe mu continuer di am diñite loolu dafa am solo ci àddina parce que fi mu ne nii ñu bari ci ñun teraanga moo ñu sonal mais am na ci ñoo xam ne euh, honneur moo leen gënal prestige fi jamono toll naka da am nañ ci réew mi bu ma gisee keneen ak keneen taxaw. yooyu sama xel da ciy dem démbul remarque boobu laa def na ma nekk na ma nekk réew mi nag te am na ay bañkat ba léegi nag te réew mi am na ñu am ay conviction am na ñu am ay principe am na ñu am ay valeurs yi ñuy sauvegarder enceinte huit mois nekk ci sa weer mën a am dignité à ce point te mun na am yow bi lay woo sax ci yoon di programme procès bi danoo foogoon ne di nga toqi wala nga xaddi wala nga sóor li nga ëmb mais malgré tout mu rese digne loolu dafa am solo Alfousseyni Gaye carrière moo nekk ci kanamam docteur bi naan certificat médical ak ñoom seen kii di capitaine Touré carrière am la arrêté parce que dafa am ay convictions yu mu gëm dem bi mu taxawee da ngay sentir ni kii euh, honneur moo ko gënal ay prestige parce que bu doon prestige mbir mi am na deux ans du ñàkk am na lu dox ci diggante bi li taxoon ñoom seen kàddu mënoon a waroo kon réew mi nan jàpp ni ba tey jii am na ay valeur am na ay principe am na ay nit yu am gëm-gëm am na ay nit yu dëggu am na nit yoo xam ñi ngi xool seen digganteeg yàlla te pourtant ñoo ñëpp ay ndaw la loolu tax man bu ma gisee ndaw ñooñu mën a am conviction ak principe ma gis ay mag yoo xam ne xalaatu tunu yàlla te seen dund li des bareetul mais ma je me pose des questions ci lan lañ xalaate ak ci man réew la ñu ne nekkaguma ci moo def ak moo def de wala am na dëgg nekk nekkuma ci yooyu mais maa ngi ci valeur yi tax ñun ñu war ko doxee ñu war ko gëm te démb booy seetaan ci bi di nga gis lu mel noonu nga xool ñi doon défendre euh, Ndeye Khady wala Ousmane Sonko nekkoon ay seede nga xool yan mooy lan mooy yan genre nit lan nga xool beneen côté bi xam na personnalité nit dafa xaw am solo personnalité nit rawatina bu waree seede dafa am solo ñun la Françoise Hélène Gaye ñun la Abdou Nguer nga xool nga xool rek yow bi réseaux nga xool nga xool jaar-jaar yi nga xool responsabilité yi parce que aussi am na yoo xam ne question de responsabilité la nga xool ñi en fare côté bi ak ñu fare ba ci biir avocat yi boo déglu Khoureyssi bi digg El Hadj ngay jàngat Khoureyssi ba mi ngi sóor teggin ci kàddoom mi ngi soor ñi koy déglu mi ngi sóor yàlla ndax fu mu waxee tudd ko nga déglu El Hadj Diouf woodul dara ci kàddu yi xool ci dara xool ci leneen nu mu gën a ñaawee rek noonu la ko doon waxee loolu nag mu doon loo xam ne ñun dañ ci war di bàyyi xel kon démb procès bi daa am lu muy jàngal mooy réew mi ba tey jii am na ñuy bañ am na ñuy lànk beneen bi ci mooy li ma metti man du démb procès bi am du sam problème mais dañ ci waroon leen egg ki ne woon dafa ëmb ba tey ji wasinagul ki ne woon ñu ko ay audio mun a dama doon foo loo ko laaj mun a dama doon foo mais foo yooyu mu doon foo mais est-ce que nekkul ni viol tamit da ko doon fooyee maanaam ki fooy ëmb fooy ay kàddoom ci audio mais kooku mun na fooyee lu nekk ci àddina pour intérêt am kase pour man ñi àtte jàngalul leen yoon mais yoon aussi te des fois day xool bon sens dooy xool ki wax xool kàddu yu démbam ak kàddu yu tayam est-ce que waroo nan démb procès bi bu ko yoon attewul borom xel yi atte nañ ko parce que suñu borom borom suñu yàlla suñu borom borom xel yi lay waxal mais démb képp ku déglu wala nga am ay écho xam ni déglu déglu ba tey ji affaire yi daanu procureur def réquisitoire li mu war a def la def parce que procureur loolu lay liggéeyam léegi juge bi la xaar waaye juge boobu nañu dimbali waaye juge boobu nañu suturaal nañu musal ci yenn yi mbir mi même bu dul ay texte xel àtte na ko xel na ko te liñ ñu doon gëmloo ñun ñëpp mooy viol menace de mort est-ce que loolu dem prouvé na est-ce que loolu démb waaw waaw est-ce que loolu prouvé prouvé nañ ko tribunal ah léegi euh, waaw léegi damay njëkkee faatu ah. waaw honneur aux dames nga ci man waaye yet bi du ma dalati non non xala man li may wax nii du ñëpp ci ànd mais dama ko gëm wax ko ku mu neexul sa affaire la dama dëgg la Omar bu nu xataab macha allah li nga indi am na solo mu nekk actualité waaye nekk tristesse ah tristesse la ci réew mi réew bu mel ni Sénégal tey ñu naan la am na ay 17 wala ay 20 morts ci diggante ku góor ak ku jigéen ci loo xam ne ca la ñu nekkoon du woon li neex yàlla donte ke ne massage la comme ni ñu koy waxee donte ke ne massage simple la dañ na góor góor a ko war a maase jigéen jigéen a ko war a maase bërëb ba benn nekkul loo xam ne maanaam res man mi bokk am naa tuuti expérience ci massage waaw am naa espérience ci massage jaar naa une seule journée ci massage fu soriwul bërëb bu Ndeye Khady Ndiaye boobu ngay wax noonu mais ngor ak dignité da nga ko wax sànq ci Ndeye Khady Ndiaye ngor ak dignité da lay pousser boo yow doo ñemee di ubbi yenn bërëb yi ay xale yu am 18 ans 17 ans. vingt ans di fa taxaw di solo yenn solo yi di aussi di doxalee yenn doxalin yi. loolu loo dégg la wala yow loo gis. non yaa ko waxal sa bopp. non dama ne loo dégg la. non non wala loo gis. ma ne hmm. xale bu am vingt ans dix neuf ans nga accueillir ko ci sa bërëb ñu ne bërëbu maasekaay la ñuy sol seeni bagage seeni nuisette li ma lay wax nii li am ci projet bi maanaam man gis naa ko jaxran gis naa ko jaxran maanaam ci bërëb yi ñu naan dañuy maase non waxuma la non waxuma la Ndeye Khady Ndiaye maanaam mais mais mais loolu am na mais loolu mais loolu am na fa mais loolu am na fa parce que gis nañ lépp du ñu ne viol am na wala amul parce que foofu dama naan képp kuy wax ne viol am na ci dossier boobu moo xam nga faral Sonko nga faral Adji foo mën di far nga ne viol am na kooku naa fekk la mënoo ne viol am na mënoo ne viol amul parce que nekkuloo woon ci bërëb boobu man nekkuma fa woon keneen nekku fa woon mm-hmm. suñu xel yi nag dañuy yónni parfois ñu yónni ñu ci ki ñu bëgg parfois ñu ne la Sonko danga ko bëgg Sonko moo nekk ci dëgg parfois ñu ne la Macky moo nekk ci dëgg amaana sax Macky du nekk ci dëgg bu ñu di dem veuglement bu ñu di demee suñu maanaam suñu suñu cofeel nañuy demee maanaam suñuy xel ci lu mën di xew mais bañ di jiital maanaam yërmande bi Ndeye Khady Ndiaye démb jigéen la xam naa lan mooy ëmb xam naa lan mooy wasin dama koy yërëm ci toogaay bi man mi bu ma la waxee dëgg boo xoolee samay bët wala sama kanam nelaw ma nelaw ma di xalaat bu ñu joxee résultat yi nan la réew mi di mujjee mm-hmm. ñi ci loru woon ak ña ci nar a dolleekuwaat loolu nag mënoon nañ cee mucc bu fekkente woon ne tey jii ko demul woon ca bërëb ba mënoon nañ cee mucc bu fekkante woon ne eh, Ndeye Khady Ndiaye maanaam ubbiwul woon salon boobu wala sax bu fekkante woon ne gouvernement yi fi nekk ñu ngi xool bërëb yi nga xam ne dañ naan lii lañ fiy def est-ce que réellement loolu ñu naan dañ ko fay def loolu est-ce que loolu lañ fay def salon de coiffure yi ngay gis ne am na salon de coiffure yoo xam ne ci ci ginnaaw day am benn lal bu ndaw bu fay nekk ñaare ci yenn yi li ma wax ne lu ma xam la ñu naan fii dallukaay la ana salon euh, coiffure ak di entrée ci coin bi góor wala jigéen pour naka noonu kon yooyu jar na ñu xoolaat ko ngor ak jom ak fula bokk na ci di bañ a def naka sudul noonu di bañ di ñu fekk la ci loo xam ne bu ñu la fa fekkee ëllëg ak si biir da ngay rus yaay gisu la baay gisu la mais yàlla mu ngi lay gis yàlla boobu ñuy wax noonu dañ koy wax mi est-ce que ñun ñu ngi gëm ne yàlla boobu noonu maanaam ëllëg ak si moom dinañu àtte parfois da ngay gis ku la naan yàlla yàlla yàlla te boo xoolee ay doxalinam ak ay jëfam maanaam yàlla nekku fa waaw yaa ngi ci <coughs> yaa ngi ci loo xam ne tey jii kumpa la. Uh-huh. kumpa moom maandu moo ci gën. waaw ah, ah, ah, léegi ak euh, euh, les <laughs> ba tey. wala non non non comme yaay présenté. <laughs> waaw euh, xam naa Fatou culture indo bi da koo sonal maanaam faatu dafa yàgg ci indo yi mais bu dee faatu yaa ngi doon lire ak di suivre actualité réew mi. Mm-hmm. am na information yu bëree bëree bëri yoo perte yoo manqué. mais mais mais xaaral xaaral xaaral non non non xaaral xaaral non non non xaaral xaaral non non non non baal maa non non xaaral xaaral xaaral non non xaaral xaaral xaaral xaaral non non non xaaral xaaral xaaral xaaral xaaral waa xaaral ma àggale rek waa xaaral ma àggale waa xaaral waa xaaral ma àggale rek xaaral ma àggale waaw non xaaral waa xaaral non non mais xaaral waaw mais xaaral non non non mais mais mais bàyyi ma wax sama xalaat rek xam nga da nga wax sa xalaat waa xaaral waa d'accord léegi bàyyi ma wax sama xalaat waaw dama ne culture indo bi daf la sonal. non sonalu ma bul ma ne bu ma indi waxal rek bu ci sa xalaat bu ma dugal ci indo daf la sonal parce indo la sénégalais la buy suivre culture inde bëgg ko. waaw mais xam nga yow tey da ngaa ñëw wax sa xalaat. Mhm. ci li xew ci réew mi. waaw léegi yow nga wax sa xalaat ci réew mi léegi damay wax ci ci li nga wax. sa xalaat ci xew ci réew mi. ah mais vraiment nag. ah, ah. ah mais da bàyyi ma wax kay. léegi ah, comme ni nga waxee sa xalaat ci Omar. waaw léegi dafa am dafa am lu lu bari lu la rëcc. Mhm. ci li nga euh, maanaam li la rëcc mooy. Mhm. yow maanaam simmeeku ak ñàkk xorma ak ñàkk kersa. Mhm. gi nga présenté salon bi. ka fa doon liggéeyee moo ne amul. comprendre nga. ka fa doon liggéey mooy deuxième masseuse ba fa nekkoon. moo ni simmeeku amul ca salon ba te moo fa nekkoon muy benn. ñaareel bi moom mooy audition bi amoon ci diggante capitaine Touré ak Adji Sarr. Mhm. Adji Sarr moo dëggaloon ni simmeeku amu fa. Mhm. muy ñaar. ñaareel bi itamit dut bi nga indi que ni. Mhm. mënoo dëggal ka am na fa wala amu fa. yàlla rek a xam. waaw ka waxoon ni dañ ma violé. moo ñëwaat ci audio ni viol amu fa maanaam waa ji tëddeewu ma. ci audio xaaral ci ak audio la rek audio. dañ ciy yooyu yaa ko fi indi temps yële manipulation. manipulation mais nee na moom la kan moo ko manipulé. ki ne ma wax ci audio yi loolu ce qu'il a dit mooy audio yi. waaw ah, ah. réew mi moom li ñu def wax di wax waxaara waxaara ñu jël maagale baalu maagale. Mhm. ndaw si doon dañ ma violé moom moo ni. Mhm. lii ma def ni keroog gaa bi ñëw na fa dafa maase wu dem yoonam. Mhm. diw diw ñoo ma ko defloo. li ñu ma diggoon bu ñu ma ko joxul danaa wax suma waxee seen nguur dina daanu kon moo tax ma jàpp ni man su ma rangé woo foofu. damay mën a wax ni kat lii du dëgg. comprendre nga moo tax su ma nee la da nga manqué information. mooy dafa am lu la garaaw Omar Omar jëlal. Euh, euh, damay laaj Omar. Euh, xam nga bala ngaa di def li nga xam ne moom moo di àtte. nga xam ne moom mooy concerné bi mënoon nañoo bàyyi ba mu ñëw. man loolu laa waroon na njëkk a wax. ki nga xam ne mooy concerné muy Ousmane Sonko ñëwul. bi nga bi ci des mooy démb ñu gis loo xam ne du naka su dul noonu xol yëpp a metti xol yëpp boo ko boo ko waxee soo ko waxul lépp métti nga ñëwaat nag léegi nii moom avocat bi nga xam ne moom moo di avocat euh, Ousmane ko wax lu am solo gis nga Omar. Mm-hmm. yàlla lu dara sóor la ci booy àtte ndax dañuy àtte yàlla kenn rek mooy juge kooku mooy sunu borom. Mm-hmm. loo àtte fi di nga ko àttewaat euh, feneen. te nan xool ni nuy defee suñuy jëf nan koy xool di ko xoolaat bu baax a baax a baax man loolu rek laa parce que dem ni nu gisee ni ma gisee lu ma naqari la ba pare lu ci gën a métti mooy économie réew mi nu yàq kenn kenn demul kenn dikkul kenn demul kenn dikkul et pourtant lan lu ko fi waral ay sos lu ko fi war ay wax yoo xam ne kenn xamul wax ji fu mu jógee yàlla na nañu yàlla sàmmal boppam man dem bàyyi démb wax dëgg yàlla Omar ma wax la ko lu ma am du lu ma naqari laa am démb ci procès bi gis démb muy diggante Sonko ak Adji Sarr xaw ma nag nuy mujjee. Mm-hmm. déglu nañ ñaari avocats yi El waaw euh, ak li mu ci wax. waaw d'abord man euh, fi may njëkkee Fatou euh, mënoo di def émission. di soor ay saaga ci bitti. bëgg aussi tamit kenn du rebondir ci li nga wax. ndax da ngay sóor ni. li ngay wax moo lay indil ay saaga ñun ñi dañ ñuy saaga ci saaga man lañu dëkk yaa ngi dégg mais euh, ñii saaga ñooñu foofa la seen xel toll doomu aadama bu ne da ngay joxe sa xalaat ak sa gis-gis ci li nga xamante ni bii mooy li xew loolu moo ci sa gis-gis euh, di ma maaka yaa ngi joxe sa gis-gis ak gis-gis boo mën a joxe même bu ñu bokkut gis-gis damay respecter sa gis-gis boobu nga xam ni moom nga am mais tamit bu nit di wax parce que sànq li nga wax yëpp su euh, sukkandiku nga ci lu Omar wax moo tax bi Omar wax ma ne ko bàyyi ko mu wax xalaatam mm-hmm. comprendre noonu nga war a bàyyi tamit son yi bu mu joxee xalaatam mu daa dee jeex mais boo nee mm-hmm. boo waxee noonu day mel ni comme kii dafay mel ni mm-hmm. euh, kii te fekk ne gis-gisam la am parce que wuute gis-gis am na ñoo xam ne bu ñu wuuteeg yow gis-gis dañoo dañuy commentaire saaga la. mais mais actualité bi ma ne daf ma rëcc ma ne rëccu ma. loolu rëccu ma loolu rëccu ma. en actualité li fi xew ci réew mi. depuis yëf yi soosu dara rëccu ma ci waaw mais c'est que loolu loolu la foofu laa waxee ak moom mais. pas keneen la boo xam ni. peut-être dafa dafa am mhm. noo waxee mu mu lay expliquer li nga xam ne bii romb na. Mhm. ne la peut-être lii euh, euh, déggoo ko moo tax peut-être nga waxee nii wala leen maanaam day argumenter li nga xam ni moom mooy ay gis-gisam mais loolu. c'est très important il faut lu mel noonu. Euh, aussi tamit di am. Mhm. bon d'abord man <laughs> li nga xamante ni bii mooy procès bi man fi ma mettre El Hadj di xooloo man duma fa xool waaw parce que angle bi ma bëgg a xooloo dafa mel ni angle moom moo. fi mu toll nii moom mooy diriger te amul preuve wane ñu ma benn preuve boo xamante ne bii eh, teg na ko ci table bi lu may mën a wax ne ma viol am na fi c'est bu ñu jaawale li ñuy li ñuy li ñuy wax li yóbbu mbir mi fee dañ ne daf maa violé maanaam dañoo sëy te neexuma que ni cadre bi cadre sëy laak bu cadre sëy gars yi fu ne la loolu intéressé wu ma lii ñu intéressé nañ def focus ci li nga xam ni moom la ñuy wax menace de mort ak viol bi nga xamante ni bii moom la ndaw si wax ndax loolu am na lu koy firndeel de dëgg la wala du dëgg bu dee nag daf doon café viol ba wax viol comme ni mu café ne waa ji defuma dara ñu wax mu ne dama doon fo yooyu yëpp mu ñu daal di koy teg ci table yi bu dee da ko doon kafe nañu ko teg ay daan yu méngoog li nga xamante ne bii mooy jëf ji nga xam ni moom la jëf parce que soit daf ñoo mën a mën a indil ay preuve yuy wane ni moom mii kat dañ ko violé ñu xam sénégalais yi xam ni kon lii am na bu fekkee ne amul preuve nag na ko nit ñi demande ay preuve wala ñu laaj ko ay preuve parce que bu ñu àtte rek mu yem ci parce que am na ay nit ñu bari ñu ci ñàkk seen bakkan yaa ngi dégg buñ ko doon calculer tey plus de ñaata est-ce que matul vingt personnes yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci dossier bi ah ba noppi léegi ñu nar ko bëlëm bëlëme maanaam man dama jàpp ni maître Diouf li muy wax nii damay laaj un milliard kii bi nee na lii kii nee na lii loolu genre euh, bu ma amut lii it bu may laaj man kenn duma laaj maanaam genre loolu la quoi maanaam nañ àtte affaire bi àtte boo xamante ni man jàpp naa ni loolu parce que waaw nañ bàyyi mu sedd hmm. bu ko defee nga xam ne sa client dem mu dem te loolu munta ne parce que dafa am yoo xamante ni daf cee xew ci biir dossier bi te loolu dañ koo war a lijjanti parce que ndaw si war ñoo yem rek ci amut preuve hmm. mais bu amut preuve nañ ko teg ay daan ba sénégalais yépp xam ni daan yi teg nañ ko ko parce que tuumaal doomu aadama sinon viol day dem ba ñu ñàkk fayda sax léegi tax te gis na jigéen ñi sax loolu lu ñu war a jóg la bërki boo Njaay jiiñ nañ fi waa ji ñu génn ñu ne dara amut te nee nañ certificat de médical wane na ni mën nekk na yaa ngi dégg kii ñu ñëwaat mu tuumalaate indiwul benn preuve ba léegi ba li ñuy wax nii parce que lépp maître Diouf ci ay wax la yam ba léegi man indi luguñu nee na téye na man diw man yu ka la man yu kay yomb naa tee. waaw ban man yu nga tee. waaw la ak waaye yor fekk luy siit rek nga daab ci jàpp naan tee naa man yu mi ngi nii. ban la. waaw fu mu jógee fu mu jógee. loolu mooy li nga xamante ni bi moo jaral lijjanti. en tout cas daal yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi. Eh, tayit eh, ñuy xaar daal li nga xamante ni bi mooy justice. ñu wax ko ca bés boobu ngir sénégalais yëpp xam daal ni nga xam ni noonu la yëf yi demee ñu jàll ci leneen réew mi ànd dal yàlla nañu yàlla defal jàmm amin amin amin ku xool démb réew mi xam ne sénégalais ñu am xel la parce que fi leen doon xaar demuñu fa gisoo ko taal gisoo ko toj ñëpp di déglu loolu nag am na lu muy jàngale mooy nit ñi muus nañ te am nañ xel te mën nañ ràññee euh, teg ci di ñaan président Macky Sall bi muy falu da am baat baat yu mu doon wax yu neex parce que danoo nguur Ablaye Wade danoo yàq valeur yi bu ñu demee ba deux mille vingt trois mu gën a yàqoo nii. parce que gën ko yàqu mënta weesu rek lu luñ dund démb. moo laaj sama benn kilifa man ko ban problème la Sénégal am démb mu ne kilifa njit ak kilifa du benn. Mm-hmm. kon su kaa kaddu gaangoo. jërëjëf Omar Boun Khatab Gueye rafetati na macha